nee na ku fase soxnaam ñetti fase bu fekkee da koo takk bàyyi ko teel ko takkaat bàyyi ko teel ko takkaat bàyyi ko mu ñetti yoon moom ku ne xam na ne moom ñett la moom ñëpp daw nañ ci ne moom bala koo mën a takkaat faaw jëkkër dafa jaar ba joteeg moom bu tàggoo moom nag moom mi ko njëkk na fase ñetti fase mu door koo mën a takkaat waaye bu dee ci yoon Maalik moom fase ñett mën naa rek ci benn jataay ci benn kàddu ndax bu dee ci yoon Maalik moom bu ne ko fase naa la ñetti yoon rek ci benn yoon du tee njàppee ko ñett fase soxnaam nag ñetti yoon ci benn baat rek ni ki mu ne ko fase naa la ñetti yoon loolu fase ñetti yoon la ci benn baat loolu fase bi daa la waaye du ko tee dal te ñett lañ koy jàppee itam bu dee ci yoon ci gis-gisu waa Maalik waaye ci gàttal rek bu la waxalee pasem sunna muy pasem yi ñu taam ba noppi nag bu sax yi xëttee rek nga xam ne kon pasem bi daal la pase ci boppam nag sunu borom da ko bëggut ba addis ba wax ne abbu xabul xalaali ilallahi ab talaaxu waaye nag su demee bu mënta ñàkk dañoo bëgg góor ko koy def mu taylu ba sàmmoonteeg nii nga xam ne moom la ñu tuddee pasem sunna te loola mooy na laaj soxna sa ba mu ko ne maa ngi ci laab maa ngi ci ak laab maanaam tëluuma ci gis deret mbaa boog fekk moom góor gi xam na loola mu wóor ko xam ne kon ci laab la ko fasee te itam fekk laab ga bitiwu caag moom dara dara mooy bu mu xamee ne laab na ba léegi jotewu ak moom te it mu fase ko menn pase dong dañ koy def ñaar mbaa ñett tayit bañ caa tegaat meneen pase ba idda ji jeex ndegam naru koo fay li ndax xam nga ndegam ma buumu see gi ñetti fase moo koy dog kon bu ko fasee benn itam di fekk idda ji jeex bu ko fasewaatee pase ma day dal dañoo bëgg nag bañ caa tegaat meneen ba idda ji jeex ndax moom bu fekkee tàggoog moom dong la bëgg bu idda ji jeexee rek takkaat moo ko koy may waaye moom seen diggante ba idda ji jeexee jeex na kon sart yi ci dajee rek parce que mañ taamu am na muy pasem sunna bu ci benn sart xatee rek mu daal di nekk pasem bidaa sart yi ñu dal ko baamwaat mooy ba mu koy fase moom jigéen ja daa toll ci laab te moom góor gi laab googee jotewu ci ak moom dara te it benn pase képp la ko pase te dolliwaatu ci meneen pase ba idda ja jeex dafa wax ne nag boo fasee jigéen te àggoo ci yemukaayu buum ya di ko fasewoo ko ñett kon li fekk dajee jeex mën nga koo fay li fayu na mooy nga wax ne rek jëlaat naa sama soxna moom ci boppam sënta bañ waaye jigéen ji sënta bañ ay mbokkam sëñ ñoo bañ waaw kon li fekk daj jeexul mën nga ko fay li moo tax mu ne jamono yooyu gor dafa am jaam am mu ne nag bu dee gor li fekk dugg ci deret ñetteel ja mën nga koo fay li bu dee jaam li fekk dugg ci deret ñaar ja mën nga koo fay li kon ci takk-takk rek fekkee fasiwoo lu mat ñett daal ndax léegi jaam amatut kon danga fasiwoo lu mat ñett rek li fekk idda jay jeex man ngaa fayli fayli nag mooy nga wax rek ne jëlaat naa sama soxna mbaa nga dem joteeg moom te jublu ca fayli su boobaa nag jigéen ñi sañ te bañ ay mbokkam sëñ ñoo bañ te doot joxewaat dara itam maanaam bu fekkee soxnaam dafa ndawe ba du gis deret kon moom saa yu ko fasee rek baax na ndax li li tax ñi bañ ñu fasee ci jamono yi koo ko gis deret mooy du mën a tàmbalee iddaw lu may dara jóge daa jeex ndegam kii nag moom daa ndoy ba du ko gis xam nañ ne iddaam ñetti weer lay doon moom kon nag saa yu ko fasee rek baax na ba tey bu fekkee day koo xam daa magee ba du gis ak deret ba tey saa yu ko fasee rek baax na ndax ñetti weer rek lay am moom du ko yées du ko ëpp kam bëgg a fasee bu fekkee dafa ëmb itam saa yu ko fasee rek baax na ndax ka ëmb moom iddaam mi ngi yem rek ci am doom bu amee doom rek idam jeex dañoo xam rek mooy ñëwaat képp koo fase te mucc ñett rek la neexee faylu ko li fekk idda jay jeex bu dee ko ëmb moom lay jeex idda ja mooy mu am doom kon li fekk amul doom rek mën nga ko fayli bu dee ko xam ay weer lay idda woo itam mooy ka ndawee ba du gis deret wala ka màggee ba du ko gisati ñetti weer lay am kon kooku ba tey li fekk idda ji jeexul rek li fekk weer yi jeexul rek mën nga koo fayli suñ borom ne wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quru'in ña ñu fase dañu négandiku salaasata quru'in xar u boobu ci làngu arab dafa am ñaari prix day firi ak laab di firi mbërëk bu dee ci yoon waa maani moom lañ koy firee ay laab dañ koy firee mbërëk xam ne kon ñu ay laab lañ ñuy wàññi xam ne jigéen buñ ko fasee te fekk mu toll ci laab day wàññiwaale googa laab su gisaasee deret ba laab muy yaari laab su gisaatee jeneen deret nag ba laab ci jooja kon loola mooy laabu ñetteel ga ci gisaatee deret rek kon ñett laab yépp mat na ñoom ay laab la ñuy wàññi bu dee ci yoon Maalik araam na soxnaam toll gis deret mu di ko fase kon fase ci jamono gis deret moom lu araam la du tee nag bu ko defee pase ma dal yoon da koy forcé moom góor ga ci mu fay li soxnaam soosu bu fekkee luñ mën a fay li la xam nga xam nga bu xasee ba ñett moom ñett mënu koo fay ndax jëkk dafa war a jaar waaye bu fekkee ne benn fase la mbaa ñaar nga xam ne fase ba jeexut te fase ko jamono deret dañ koy wax ne ko faaw da nga koy fay li ñu ko yëgul nag ba idda ji jeex na kon jeex na jeex na fay li mënatu caa am ndax bu idda jeex kenn mënatu fay leeti bu fekkee daa fas woon lim bu mat nit ki boo rek ñetti yoon ba tey wala boobu mooy ñetteel ba it ba tey kon duñ ko mën a forcer ci tey nga fay li ko
su ko faylee moom da koy téye ba mu laab ca deret joojee téye ga ba mu laab ci deret joojee moom mënta ñàkk waaye nag bu laabee ca deret joojee itam dañu noo digal ca addis ba mu bàyyi ko ba mu gisaat deret ba laabaat ca deret joojee tey jamono nag su ko bëggee fase door koo fase su ko bëggee téye itam mën na koo téye suñu nee def ko war a forcé nag forcé ka ci benn jataay lay doon artikat ba moo koy wax ne ko fay liir sa soxna si sañoo ko bañ te soo ko defut ma daal di tëj kaso su fekkee taxul mu nangu mu tëj ko kaso bi saasa bu ko tëjee kaso ne ko fay li léegi léegi mbaamu dóor la su nanguwut a fay li mu daal di koy dóor su ko dóoree te taxul mu nangoo fay li moom àttekat bi ci boppam mooy daal di fay li soxna sa ci forcé du ko sañ a bañ ko wax ne ko fay lil naa la sa soxna si donte nag moom amul yéene ci loola moom ma fase amu ci jublu itam du tee rek bu ko àttekat bi faylee day daal di wecci faylik boppam nga xam ne mën naa wéy joteeg moom mën naa wéy jàppe ko soxna muy wéy
nee na buñ la mayee soxna soo xam ne jotiwulaa ak moom dara ak may dong la kon waxtu la neex rek nga koy fase ndax moom du iddawul sax sax képp kuñ mayee te ko jotiwut ak moom dara rek ñu ko fasee du jar mi iddaw iddaw waru ko nañ ko daal di mayewaat fa saasa mbaa ko ko fase mën na ko daal tëkkaat pasaas kooku nag kon wax boo ko fasee rek baax ndax amul iddaam jooy yokk baa dara ndax du xiddaw safar man amul iddaam jooy yàggal dañ naa du ko fasee ci mbërëm baa dara ndax moom ndegam idda waru ko rek wax boo ko fasee baax na waaye moom nag boo ko fasee benn dong itam doo ko mën a faylee di ndax xam nga fayli ci idda lañ koy def te moom du iddawu moo tax kon boo ko fasee benn rek daan na koy fajtal mooy doo ko mën a faylee di ndax ñu ngi fay li ci biir idda te mu idda waru ko moo tax amul idda ba nga di ko fay li ki la may di jutewu laag moom dara boo ko fasee ñett ñettee dana ko aramal doo ko sañ a takkati ba kenn jëkkër di ci jaar moo keneen ñooyee moo ci googu wàll koo xas fase ñetti yoon rek bala nga ko mën a takkaat faaw jëkkër jaar fa ku wax soxnaam ne ko fase naa la waaye foofu rek la yem néew ko benn baa ñaar baa ñett dañuy jàpp ne benn am na boo defee àttekat laaj ko nag ba xam loo jublu woon ci fase naa la ji bu ne ñaar mu nekk ko ñaar bu ne ñett mu nekk ko ñett.
bu fekkee ka fase xamutoon ba xam fase dañ koy wàññi naa benn ñaar ñettam déet mu ne rek fase naa la xamu ca walum ci yéene naa benn ñaar ñett wax ji gën a wóor mooy dañ koy jàpp rek benn fase nga xam ne kon bu idda ji jeexut sañ na koo fay li ndegam wéetoon naa ak moom bu idda ji jeexee itam mën na koo takkaat tu aajow mi xaar jëkkër jaar fa
sumi ko mooy jigéen ji doyal ci sëy ba ba jaral ko fay alal saa yu joxe alal moom jigéen ji ngir ñu may ko baat nag bu góor ga newul may naa la sa baatit dañuy jàpp ne moom góor gi fase na soxna sa parce que moo xam ne du ko sañ a fay li ndax xam nga su ko sañee fay li kon alal ja mu joxe da koy ñàkk ndax day jox alal ba nag mu ne ko fayli naa loolu moo tax ne kon bu ko see fay alal moom jigéen ngir ñu may ko baatam rek bu ko xul ne ko fase naa la dañ jàpp ne fase na ko rek moom dañ ko jàpp mel parce que moo xam nga am fayli bu idda ji jeexee dañ jubuwaat na mën na koo takkaat waaye fayli moom du ci am ku wax soxnaam ne ko fase naa la parce que mu dog jàpp dog moom ñett a koy def faaw ñett lañ koy jàppee moo xam dañ ko koo may kese yam ci jotte wut ak moom dara wala jot naa wéet ak moom ñoo cee moom moom daal bu waxee soxnaam ne ko fase naa la fase mu dog ñett lañ koy jàppee moom te bu mi ngi sa jogale mooy fu la neex demal ndax bu ñu message wëtal ak jur dañ koy yeewi jàpp ci buum nga di ko jiital muy dem dem ba sori ñu sànni buum nga mu dal ca ndodd ma man ko ne ko mën ngaa dem nag fu la neex jëmal sori ba ngay wàññi ko kon nag boo waxee soxnaam ne ko xablu ci xala xaali bi ki loolu mooy fu la neex jëmal ñu ne bu bu waxee soxnaam ne ko anti bariyatun wala anti xaliyatun wala anti haramun wala wala anti xablu ci xala xaali bi ki yi mel ni moom nee na bu ko waxee soxnaam dañuy seet ba xam dañu ko koo may kese yem ci wala ci jot naa wéet ak moom bu fekkee day koo xam ne dañu ko koo may ba mu wéet ak moom bu ko waxee kenn ci baat yi ñett lañ koy jàppee bu dee koo xam ne nag moom dañ ko may rek yem ci waaye jot jotiwut ak moom dara kon dañ ko ci may yéene mooy ñu ko wax ne ko loo jublu bu ne benn ñu jàpp benn bu ne ñaar ñu jàpp ñaar bu ne ñett ñu jàpp ñett waaye nañ wax ci gën a wër mooy xablu ki xalaa xaalidiki noonu xablu ki xalaa xaalidiki ñett lañ koy jàppee moom moo xam ku wéetal la moo xam ku wéetalul la yamale yamale wuñ ko bariya ak xaliya ak xaraam déedéet xablu ki xalaa xaalidiki moom bu ko waxee rek jàppee ko ñett daxal bi aw lam ya doxal
am na nag secret bu nekk foofu boo xam ne bu mat a xam la te mat a ràññee mooy baat yi nga xam ne moom la góor gi wax bañ ne fase na soxnaam dañ koy takk ci foofee mu nekk nañu aadawoo fase rek ndax baat yi mu la wax ñu moom ñoom ñoo ko daa jëfandikoo fa mu doon taalife téere bi ak béréb bi demee noona aada ñu mën doon nag muy wolof yi muy séréer yi muy ñeneen ñi fu mën doon daal dañuy seet baat yi nga xam ne moom la ñu ëpp jëfandikoo ci buñ dee fase ñu seet bu ñu waxee baat ya lañ ca daa ëpp jublu ci aada ñu àttee leen ca noona loolu nag lu mat a xàmmi lu mat a ràññee la maanaam nag buñ la mayee soxna jotiwu la ak moom dara nga jekki-jekki fase ko kon kenn nga ko waroon a jox da nga koy jox genn wàll ga waaw kon jàppal ne kuñ la may rek nga fase ko te jotiwu la ak moom dara da nga koy jox kenn wàllu can ga soo jotee woon ak moom moom can gépp nga koy jox waaye ndegam joti wu la ak moom dara koy fase nag du te nga jox genn wàllu can nga ka nga fase njëkk wéet nga war koo jox genn wàllu can bu fekkee ne magom jëmb la te nee na baal na la genn wàllu can gi kon baax na du aajoo nga di ko jox su fekkee day gone nekkagul jeeg mënta wee mbiri boppam kon baayam la ñuy seet bu la baayam ne baal naa la genn wàllu can gi kon du aajoo joxe waaye jamono yi jaam amee biñ la mayee soxna soo xam ne jaam la nga jekki-jekki da koy fase te jotu te wéetu laag moom jotu laag moom dara kon xam nga war nga koo jox kenn wàllu can léegi moom mën la koo moom mën la koo baal sangam ba nga xam ne moo ko sañ a maye te moo la ko mayoon sax boo ko moom bu la baalee genn wàllu can nga baax na waaye bu la ko baal faaw nga joxe ko boo fasee jigéen nag ba muy dem bëgg nañ nga seral xolam am loo ko jox ci alal loolu nag yaay seet rek lu sa kàttan toll te sa man-man toll rek nga jox ko lu toll noonu walaa yu ci bëri waaye def ko ci forcé dañ la forcé ci faaw nga jox ko nangam ci alal yeena bu dee kuñ la may koo xam ne jot laa wéet ak moom mukk te fekkan na nga waxal ko can kon xam nga yoon nee na la boo ko fasee da nga koy jox kenn wàllu can nga kon genn wàllu can nga doy na ab yóbbal du aajo nga di ko joxaat leneen ndax xam nga yow yóbbuloo ko dara dañ la ko may dong yem ci jotiwu laa ak moom dara te waxal gi nga ko waxal can tax tax na yoon ne faaw nga jox genn wàllu can nga kon genn wàll bi koy jox doy na benn yóbbal du aajo joxaat ko leneen boole jox maanaam jigéen joo xam daa doyal ci sëy bi comme jaral ko fay alal ndax ngay ko baatoom kooku bu dee dem mën jox genn alal ndax moom li mu bëggoon am na ko mooy tàggoo yow comme jaral ko sax fay la alal kon kooku du aajo muy dem nga di ko jox dara. góor buñ ko mayee soxna te wax nañ can nga na mu war a toll maanaam su góor ko faatoo te jotiwul soxna sa itam te tey soxna su boole yaar dana am can nga ñu waxante woon dana doon tam boole ci bu fekkoon ne góor ga daa faatu nag te fekk waxuñu woon genn can nag dañ ko mayoon rek yem ci su góor ga faatoo day doon rek yem ci te bañ a am ab te bañ a am ak can waaw foofu rek la taxalikoo bi amee bu fekkoon ne moom góor gi laata muy faatu jotoon naa wéet soxna sax waaye wax lu ko woon genn can nag xam nga day ne woon suñ ku ko mayee sëyub joyal mooy waxuñu can wër te wéet ak moom te waxalu ko can waaye moom nag wéet naa ak moom te jotu koo waxal can
daal di faatu nag moom góor gi kon su boobaa dañuy seet li ñu cene ay moroom jox ko ko ndax wéet gi ñu wéet ak moom moo tax war naa am can kon nañu seet li ñu cene ay moroom jox ko ko te du ko tee doon nag moom bu fekkee wax nañ ba juboo can sàngam nag googa lañ koy jox moom nee na buñ mayee nit soxna nëbbu ko ca jàngoro joo xam ne xam moom xamu ko woon te ba mu ko xamee itam neexu ko ni ki jigéen ñi daa amee ak ndof mbaa daa amee ngaana mbaa daa amee siti mbaa daa amee ayub ca sawukaay ba lépp ñu nëbbu kooku nag kon saa yu ko yëgee rek moom góor gi mën naa jékki-jékki génn ci sëy ba su fekkee xës na joteeg moom moom faaw mu war koo jox tan waaye da delluwaat nag ca ka ko mayoon jigéen ji ci waxu ko sikk si kookaa koy remboursé can ga waaw day jox jigéen tan ca delluwaat ci bàyyi ba ko mayoon mu daal di koy delloo can ga ke càmmeñ moo ko mayoon nga xam ne jàpp ne xamul na sikk si da koo nëbboon rek ba tey kon mooy remboursé waat jëkkër ji can googee bu fekkee nag ka maye jigéen ja moom yoon moo ne ko yaa war a maye mu maye rek waaye mën naa bañ a xam sikk sa ndax moom day kilifa gu sori mel ne doon bàyyi bu ndaw seeni bàyyi rek bokk ne ko yow yaa war a maye mu daal di maye ndax la seeni bàyyi bokk kooku bu ca sikk sa feeñee ba góor ga joxe can ndax fekk nañ jote bu noppi moom jigéen ja su tax mën a wax ka maye woon ne ko yaa may fay ndax kooku moom day kilifa gu sori mën naa bañ a xam loola da cay kompaloo waaye yooyu jamono itam soxna sa dañ koy jox gën gaa néewi can rek benn jox ko taaru dinaar mbaa ñett dërëm ci yoon gën gaa néewi can waaye dis ko jox can googu loolu maanaam kuñ may soxna ci mu tële joteeg moom dañ koy bàyyi soxna sa diru at mu nekk ak moom ba xam dana man joteeg moom déet su mënee ci diru at mi kon loolu baax na at mu matee nag te taxul man nag bu neexee jigéen ja bu wéy rek si ànd ak moom ca noona ñu bañ a tàggoo bu ko neexee itam nag ñu tàggale leen
bala noo jàll nu fàttalee ne sikk yi nga xam ne bu ko góor gi fekkee ca soxna sa te xamu ko ca woon te it neexu ko ba mu ko xamee dana sañ a génn ca sëy ba dañ fay ko alalam ba tey kat fekkee ne jigéen ji moo fekk sikk yu mel noonu ca jëkkëram it te xamu ko ca woon it daal di sañ a génn ca sëy ba sikk yooyu nag moo doon ak ndof ak ngaana ak siti ñu doon ca benn rek mooy biñ dee jotee jote góoru jigéen am ca kuy génne xayta yent yooyu moom ku ko fekk ci ka ngay séyal rek te xamoo ko ca woon rek danga da nga sañ a génn ca sëy ba dana waxoon nag ne góor gi bu fekkee xeet sikki yi ci soxnaam te ka ko ko mayoon di kilifa gu sori mel ne seeni bàyyi daa bokk rek moom kilifa ga maye mook jigéen ji waaye mën naa bañ a xam sikk sa dañoo waxoon ne jëkkër ji du mën a dem ci kilifa ga naa ko fay ma laa defoon ci jigéen ji lañuy doolee leeral foofu rek mooy jigéen ji bu fekkee joxoon nañ ko can itam tan wax ne jëkkër ji mënta dellu ci kilifa gu sori googee naa ko delloo ma saa alal kon jigéen ji lañ ko joxoon bu fekkee ëppan na gën gaa néewi can te waxoon naa gën gaa néewi can lu mu toll ca gannaaw bu fekkee lañ ko joxoon ëppan na loola dañ koy nangu ba mu def gën gaa néewi can te delloo loolee mu ko ëppee jëkkër ji nga xam ne day bàyyi ndax sikk sim ci gis te amul ko ko mën a delloo alalam waaye lu jigéen ji faaw ñu bàyyi ko gën gaa néewi can ndax dañuy bañ jote gi ak moom am ba noppi te joxe su ko dara dara ci can yenn jigéen bu jëkkëram jekkee jekki dem te xamul ci moom dara bu ko neexee toog di ko xaar rek bay dem ci àttekat ba waaye ndegam dem na te xamul fu mu nekk nag bu ko neexee mu dem ci àttekat bi yëgal ko ne ko ah sama jëkkër day dem na te xamuñu fu mu nekk su ko defee àttekat ba li muy njëkk a def mooy def ay gëstoom ba xam dana xam fu mu nekkam déet kenn man manam su gëstoo nag bu gëstu ba jeex te xamul ci moom dara nag su jigéen ji nangoo mu daal di koy appal deleb ñeenti at ci kaw nag jëkkëram ji dem bàyyi na fi dund bàyyi na fi fu mu dëkk te it wóor na ko ne moom jigéen ji ragalu te mooy yàlla te bu ragalee mooy yàlla moom say boo ñu fase ko mu wutiwaat jëkkër su fekkee jëkkëram bàyyiwu fi dund baa fu mu fàttu te loolu mënu koo muñit ba tey noonu kon dis ko tooloo ñeenti at yooyu waaye ndegam daal jëkkëram moom bàyyi na fi ab dund ak fu mu fatu fu mën a nekk te moom mën naa muñ kon dañ koy àppal diiru ñeenti at mu toog xaarandi jëkkëram ba am su ñeenti at yi matee nag moom te jëkkër ji ñëwut ñu nekk kon léegi iddawul idda yi ku jëkkëram faatu daañu leeral ku jëkkëram faatu na muy iddawoo te su boobaa ñu wax tenj muy ñaawlu da koy defaale boole ja bu idda ji matee rek mu daal di mën a wuti jëkkër maanaam nag dañoo may jigéen ji rek bu toog ñeenti at daal di iddawu mën a wutiwaat jëkkër waaye taxul na ñu mën a dogu ci ne jëkkëram faatu na kon jëkkëram àllam fi lañ koy bàyyi kenn du ko miraas lu may dañoo seet ne ba mu fi bàyyi koog léegi daal ku ko seet fi dundu jullit ëpp a toll àgg na ca am nañu wax juróom-ñaar fukki at am nañu wax juróom-ñett fukki at kon dañuy seet ba muy dem fa mu toll woon ci dund ak lam ca teg booba ak léegi bu fekkee teg nañ ca nag loo xam ne ko seet boole ko loola dana war a mat juróom-ñaar fukki ci waxi ñenn ñi mbaa juróom-ñaar fukki at ñu mën a jàpp ne kon léegi nekkatul di dund doora miraas alalam nag léegi suñu nee day dem ca attekat ba wax ko ko te jamono yi daanaka li ci ëpp attekatu jullit du fa nekk kon day dem ca kilifa jullit ga nga xam ne moo fa nekk mbaa mu dem ca mbooloom jullit ña mbooloom jullit ña seet kenn ci seen biir féetale ko mbir moom mu lijjanti ko ba tey li ñu wax ne bu ñeenti at yi matee mu iddawu iddawu ku jëkkëram faatu mën naa daal di wutiwaat jëkkër waaw su wutiwaatee jëkkër ba noppi nag jëkkëram joojee feeñ ñëw mbaa ñëw duwaaye xam ne ne ma nga ca béréb sàngam di dund mbaa boog faatu na waaye bi muy faatu daa fekk jigéen ji toll ci biir idda ja dong kooku am na teqale def koy tomb nag waaye takk-takk bi gën gaaw rek mooy nga jàpp ne daal su fekkee ne jëkkër ji ñu ko mayaat jotewut ak moom dara mbaa boog jote naa ak moom waaye moo ko tey xam na ne ci këram joojee feeñ mbaa ma ngay dund ak yu demee noonu kon dañ koy delloo jëkkër ji njëkk jë waaye nag jëkkër yi ñaareel ji bu fekkee takk ga mu takk jigéen jë yoon gis na ne takk bu wér la te it dem na ba wéet ak moom ci xamutoon dara ci jëkkëram ji njëkk ja kon dañ ko koy bàyyee moom jëkkër yi ñaareel ji ku njëkk nga xam ne ñàkk na maanaam jigéen bu tolloo ci iddaw day araam nga wax ko bu wér ne ko dama laa bëgg a takk day araam sax nga xappati ci digg ba di ko wax loolu waaye nag ba ñu ñu nga gaaral gaaral mooy wax ko waxin wane ne yow mii am nga bëgg ci moom bu iddaam ji jeexee mel nga ne ko yow day xam naa ne bari nañu ñu ta bari na góor ñu taamu ku mel ne yow wala yow day xam naa ne li nga nekk moom boo boo ci génnee dana bari ñu la njëkkante bëgg a njëkk ci yow waaye yoo xam daal danañ xamee ni moom yi bëgg na waaye du sañ a xàppati ci digg ba maanaam boo amee soxna si yees te fekkan nga yor kenn mbaa lóopu kenn bala ngaa tàmbalee yemale moom mi nga xam ne mooy soxna si yees si fekkee xiig la nekkul jeeg kon na ngay nekk ak moom juróom-ñaar yi guddi yu ànd bëccëg ya door a tàmbalee yemale nag ñoom ñëpp nañ daa ay loo su fekkee ne daa am soxna si yees soo xam ne jeeg la fekkan nag mu yor kenn mbaa ñenn lóopu kenn kon soxna si yees yi nekk moom ñetti fan guddi yaa bëccëgee door a tàmbale yembale ñëpp nag ci ay kër jamono yi jaam amee lay wax naa bu la neexee amee ñaari jaam jigéen mbaa ñett ñu bokk ndey ak baay am yu demee noonu waaye nag doo mën a jotee ñëpp jote góor yu jigéen déedéet niñ aay rek nga boolee ñaari jigéen ñu jegee ci wàllu soxna noonu lañ koy aayee fii tam ci wàllu nga moom leen tax nga bëgg a jotee ñoom ñëpp ñoom ñëpp ci seen saa déedéet bu amee ñaari jaam yu jigéen wala ñett te jegee jegee goo xam ne sañu si leen a boole di jotee ñoom mu doon jotee kenn ba yàgg xelam nekk ci ka ca def day fexe ba kee nga xam ne moom ak bëggam nekkatu ca mu fexe bu araam ko bu ko jaayee baax na bu jotoog moom baax na bu ko goreelee baax na bu ko mayee mbaa mu saraxe ko yépp baax na su boobaa nag mu door a mën a dem ci ka ca def boo moomee jaam bu jigéen bi day tax yaayam aram la mbaa maam aram la mooy nga joteeg moom waaye moomu kese rek moom ci jébéer bi taxul nag yaayam dal lay araam wala bennam ni ki doom ba sesam dalay araam déedéet waaye bu doon ca takk ga moom boo takkee jigéen ci saas rek moom ndeyam araam na la maamu jigéenam araam la ba adduna tukki fii nag moom boo amee ab jébbee ba jotee moom daal la la yaayam di door araam ba maamu jigéenam ba tey nag doom bu jigéenam ak sëtam moom noonu lay wéy ba addunay tukki doo ci mën a jotee teg kenn ba tey boo amee jébbeer jàmp jigéen bu xas jotee moom say baay ak say maam jeexal nañ ca mooy sa baay ak sa maam ju góor ak sa maamaat ju góor yëpp jeexal nañ ca kooka ci mën a jotee moom say doom it noonu biñ ne say doom say sët ci la li wutale foofu nag mooy bu fekkoon ni wàllu soxna la moom buñ la xasee fasal soxna rek moom donte jotewula ak moom dara it kañ la fasal daal nay araam ci say baay ak say maam jëm ca kaw daal nay araam ci say doom ak say sët ba ca kaw fii nag moom jote gi rek mooy tax araam googu am dina woon jaam balaa sañ a takk soxna te jaam digal ca ab sangam bu xasee takk ba noppi nag moom wàllu fase ga moom ci loxoom lay nekk bu ko neexee fase ko du aajo mu ci laaj digal ci sang ba gone sañu ta fase ci faam ci boppam mooy seet bu fekkee ne fase gaa gën mu fasel ko soxnaam rek waaye gone moom kenn dellu faseem nee na sa soxna boo ne ko parce que day man góor gi man la ko yàlla moomale waaye nag yow boo bëggee fase sa bopp jël naa pase ni teg ko ci sa loxo la neexee dóor ko ci sa bopp loolu mooy kon moomale nga ko pase ku ñu tànnloo nag mooy nga wax sa soxna ne ko tànnal doon sama soxna wala nga tànn dem nu tàggoo yooyu yaar tànn ci lenn ñenn yaar yi loo ci wax jigéen ci jataay ba mën naa tànn la mu bëgg bu ko jataay ba xasee jeex nag jeex na waaye dafa jataay ba jeexul moom bu dee ka nga wax ne ko moomale naa la pase bu ko neex mu ne dóor naa sa bopp nangam yi pase bu dee ka nga tànn loo bu ko neex mu ne tànn naa wéeg saa bopp bàyyi la tàggoog yow jigéen ñi nga wax ne ko pase day maa ko moom man góor gi waaye léegi moomale naa la ko bu la neexee dóor ko sa bopp su ne dóor naa saa bopp ñaari pase ba ñett mën nga ko ne ah man kat bàyyi wax itam benn rek moo tax may wax waaye muy ma la ñaar ba ñett benn rek moo tax may wax loolu sañ na ko moom góor gi bu nee soxnaam nag tànnal doon sa soxna wala nga tànn dem du tàggoo lay baax rek mooy soxna si wax ne kon de tànn naa saa bopp mooy fase naa saa bopp ñetti fase maa ngi dem waaye su ne tànn naa benn la muy tekk rek mooy kon daa bëgg a toog ndax benn jeexul bu mu séegi bu nee ñaar noonu ñett rek mooy la nga xam ne moom lay wax mu tegtale ne tànn dem ak boppam li bu xasee wax ñett itam moom góor ga du mën a weddanteeg moom naa ko ah man kat baa lay wax itam benn tax may wax mbaa ñaar foofu la wutanteeg kee ñu moomal pare loolu moom wute nañ ci ñoom ñaar